boutique Total Kër Xaadim ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne daloon na ci seen kaw ci jamonoy manifestation yi nga xam ne amoon na fi ñoo yëgal clients yi nga xam ne safoo nañu bërëb bi ne dooraat nañu seen ay activité ne bépp produit boo xam ne daa ngeen ko fekk ci bërëb bi jamono ji lépp daal na yembaat rawatina jamonoy sëru ramadaanal mubaarak bi ñuy waajal ginnaaw ba ñu leen songe woon ci manifestation yi nga xam ne amoon na fii saccage bërëb bi loolu yi ñu rafetlu bu baax solidarité bi nga xam ne jóge na ci askan wi cant goog yi ñu ciy jiital xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir ak mbooleem njabootu ku tedd ki Serigne Touba ndax bari na ñu fa teg seen tànk ci bërëb boobu bi ginnaaw ba ñu déggee boobu la xew-xew population bi nekkee ci Touba ak li ko wër ñoom itam amel nañu leen jukkal jamono jii daal ñuy xamle ne lépp daal dina yembaat ci boutique daanaka total kër xaadim di ngeen xam ne fa taxaw temm ci di leen jàppandal produit yi nga xam ne da ngeen ko yittewoo ci bërëb boobu yi bu ngeen ci bëggee ay information yu gën a leer mun ngeen leen jot ci 33 976 03 39 wala 77 583 17 17 wala 77 899 45 45 wala 76 623 09 50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 bi nga xamee ne dafa nekk ci Ablaye Wade Ablaye Wade def ko lu nekk def ko ministre intérieur def ko premier ministre def ko assemblée loolu lépp ba yàlla dogal moo ko Ablaye Wade ñu juuyoo bi ñu juuyoo Ablaye Wade jël yam ko joxoon moom it mu delloo ko ko yàlla dogal jamono yooyu muy delloo sax jàpp naa ne am na ñu bari ñu ko soutenir woon ci ay nit ñi ci réew mi ay kilifa diine ak ñim àndaloon mu dem sosi parteem ku ci mel ni Moustapha Cissé porsam sax député am daf koo ñàkk ak ki ñuy wax Mbay Njaay ñooñu ñëpp dañ koo ñàkk ngir soutenir ko ku nekk xam na ni kilifa diine yi jamono yooyu Cheikh Mamadou Lamine Baara moo fi nekk mu taxaw ko taxawaay bu rafet e, jàppale ko jàppale gu rafet goo xamante ni jégg na dayoo wan ko ne ko e, faaw Ablaye Wade na nga bàyyi kii te it na nga ko bàyyi mu jéem a liggéey wax nañ ne am na genn suba teel koo xam dafa xëy si ci ab sëñ Mouhamadou Lamine ne ko Ablaye Wade daf may tëj sëriñ bi woo Ablaye Wade ne ko bàyyil jàmbur bàyyil jàmbur ci boppam daal di koy xelal ne ko il faut nga gëm sa bopp il faut nga jéem a sabablu ngir jéem a xam ne réew mi kenn moom te boo sababloo yàlla mën na la cee jotal loola tax mu wut parteem euh, yàlla dogal passeport am sax Ablaye Wade da ko téye woon kilifa diine bu baax moo wax Ablaye Wade ne ko. Euh, delloo ko euh, passeport am yaakaar naa sëñ Abdul Fatah mu sëriñ Fàllilu la waaye ku nekk gis na ni mujjee ak ay ñooñam sax ni mujjee askan wi ak Macky Sall ni mujjee askan wi kenn xamul nu tool yàlla dogal ñetti at ñu dem élection sénégalais yi jàppale ko mu gañe bi mu gañe Ablaye Wade demaat defaat deuxième mandat ne dafa bëggaat deuxième mandat ñu joxaat ko ko ànd ak yooyu yëpp nag. mu yor doole ji yor lépp waaye képp koo xam ne ab politicien nga wala kilifa diine lu ci man bi mu toogee rek la tàmbalee nangu oto yi nga xam ne oto yu mayoon ay kilifa diine la mu nangu ko tàmbalee lu baree bare lu man rek ci xor ñooñal ak fayontoo ak xeex dina ko def euh, ci la tàmbali euh, lu gën a yéeme loo xam ne Sénégal yëpp duñ ko fàtte tëj Karim Wade fii defoon ab liste vingt cinq personnes ne danoo yor alalu réew mi daal di ciy jàpp kenn nit muy doomi Ablaye Wade mi ko xam mi nga mi nga xam ne moo ko joxoon moo ko def lu mu mën di doon buñ ko xamee moom la ci politique rek ci loo xam ne àdduna rek lay am kilifa diine yépp taxaw ñaan mu taxaw lànk lànk lànk loolu bi Ablaye Wade ñëwee fi nga xam ne ay rangooñam daanaka Ablaye Wade daw na ba ci fi ñuy wax arrêt arrêt Ousmane Ngom dem na taxaw fa ndax di métti lu tëj gun tëj doomam ak méttitam ci koo xam moo doon ab président doon mag liggéey réew mi li mu lépp doomam nga jël ko mu am benn doom bu góor nga jël ko tëj ko doomam jooju jabaram gaañu ñu jël ay biisoom ak yépp sëñ bi ñu tëj ko tëj gu metti xëy fii embargo ko génne ko réew mi lépp président Macky Sall def ko ñépp ñaan mu lànk sëñ doo si si wax naa Ablaye Wade bi mu ñëwee ne ko sa doom ji da ngaa defe ni ñaanunu nu mag Sall wax nañ ko mu bàyyi ko waaye moom moo ko bàyyiwul lu toll ne ay xalifa sénéro ñépp toog fi ku nekk ñaan sëñ Sidi Muxtaar ñëpp ñaan mu taxaw lànk bayu bi mu demee ba mu neex ko la ko bàyyi ci condition yoo xamante ni condition yu ba tey lu dal Karim Wade condition yooyu ñu ko bàyyee moo ko teg ñu waxaat mu dem jàpp Xalifa sàll képp ku jàpp ne man nga ko wuutu ci sésam bi doo ko fekke waaw Xalifa Sall wax taxaw fi def conférence de presse di wax bay jooy mu yëg ne kii dinañ ko jàpp oh, te lu ku muy jàpp rek da lay wax ne dangaa luubal xaalis dangaa def dara lay jàpp ñu bari mu jàpp leen jàpp Xalifa sàll yaayam màggee ñëpp mu xëy xëy jàpp ko Xalifa Sall li ko ràmbu si xaalis moom soxlawul xaalis ndax tëj ko ngir bañ mu doon candidat ñu waxati loolu mu daal di jàpp ba Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne moom it benn publication rek la def ci kii bi mu jàppale ko téye ko ci weeru koor weer woo xam ñëpp dañuy toog ngir di jaamu yàlla di yokk seen i yiw nga jël benn nit boo xamante ni yaakaar la ci famille doon koo xamante ni responsable la ci sa famille di xëy di ba wàcc amul lu mu war a def ngir war a dem këram noppalu fa ñu xar ko jàpp ko ci mbedd mi ci public boo xamante nii kenn xamul nu mu doon ñu jàpp ko loolu lépp boobu amatu Ba mi ngi ci wetam soxnaa ma nga ci wetam booba attaa sax ma ngay ndogu mu jàpp benn kii usmaan Sonko mi lu nit lu mburu dajul ci taal jàpp naa ni li mburu li mu daj ci taal dëgg dëgg Ousmane Sonko li mu daj moo ko gën a métti bare kaasa këram ñaar fukki fan ak nangam Ousmane Sonko day def nemmeeku tuur maanaam jàpp ci parti Ousmane song lu toll ci junni ak nàng foofu moom boo fi taxawee sa yaram day daw sa yaram day daw say rangoñ moom faw mu wàcc sa ginnaaw bu ne damay dem nàngam san ñu kar ko bu ne damay génn ñu kar ko lu mu def rek sëñ bi ñu kar ko dàngam ba Ousmane Sonko suur bi muy wax ne tey dem naa ngir xam na ne kii du nit ku ni ñaan du nit koo xam dañ koy ñaan mu may la du nit koo xam dafa am yërmande Ousmane Sonko dafa mujj jéngu rek taxaw wax ci Kër Massar daa di ne dem naa ba def tes testament dem naa jënd naa sama kii dem naa ba ci sama bàmmeelu eh, papa ñaan naa waaye Macky Sall moom du ku nit ku ni kii fi nag àgg naa ci terminaison bi mooy gàtt sa dana ma rey wala ma rey ko te te bu ma reyee moom deretam dina taq ci sa loxo man du ma ñi fi jaaroon mu leen di rey. yooyu it àgg ci àgg àggin woo xamante ni sëñ bi képp koo xamante ni dangaa Ousmane Sonko dangaa publier photom sax ñu jàpp la dangaa wax ci moom wax ju rafet sax ñu jàpp la lépp sëñ bi mag sàll di ko yore réew mi di dóor ñaata nit ñoo dee ci ci procès Ousmane aji Adji Sarr ñaata nit ñoo dee ci procès mu ak ak Mame Mbaye Niang laata ñaata moo yàqu ci alal waxuma la yàqu alalu ñu dem yàq alali jàmbur waaye xëy ñu ne benn dikk du daw ñu ne essence duñ ko jaay kenn du ubbi loolu ñaata yoon lañ ko def ci ci ci jamono yi Macky Sall ak Ousmane Sonko ñëpp kilifa diine yi ak aada yëpp nit ñëpp ba mujj ñi bokk ci parteem sax te ñeme dëgg danoo taxaw opposé ko ne ko lii ngay def bàyyil jàmbur bàyyil jàmbur tooñu la defu la dara waaye ànd ak loolu lépp ku ko wax mu mere la ànd ak loole lépp ku ko wax mu mere la ñu rey ay bakkan di wadd bu suba ak ngoon nga yëg Macky Sall bu bakkan waddee sax teer bi fi xale yi yàq sax ak yàq ci université bi loolu moo ko gën a naqari fuuf juróom-ñett fukki bakkan yi faatu gisoo benn yoon mu taxaw toog jaale kii ko wala mu metti lu lu fi dee waaye dégg ngeen ko di defar ay teer ngeen di yàq du di nangam di yooyu nga dégg mu wax waaye bakkan yi fi wadd benn boo dégg mu wax gis ngeen leen ko wax sax li lay wan ne la yëgul dara bin ko waxee fii ne ko ndax di nga maska wu li nga def Ousmane Sonko regretté nga ci dara mu ne regrettu ma ci dara dara regrettu dara waralu ko lu nguur dem na fii ñu mujj gi ñu ne ko Macky Sall ndax di nga massawu sénégalais wala nga baalu leen mu ne duma leen baalu ndax tooñuma leen xoolal loolu ñaata bakkan ñoo dee ñaata nit yoo xam bi gën a mujj te gën a tond sax mooy bi mu fommee élection yi ñeenti nit a ci faatu wala nangam Mame Mbaye Niang procès bi mu sañaxal ko ci di ko ci bëmax ay nit di dee mu nekk ci ginnaawam ñuy wax suba ak ngoon nan bàyyi lii président bàyyi lii kilifa diine yi sëñ Habib mu sëñ Alaaji Abdu Asiis sëriñ am sam sëñ Abdu Laat ak mboolem kilifa yi mel ni moom ñëpp di ñaan di wax di génn di def ay kii waaye yëgut lool sax ku ci nekk muy màttu wane na moo yor doole ji moo yor nangam ñaata nit ñoo fi laago ñaata nit la seen alal yàqu ñaata nit ñoo dee ci géej gi ñaata nit la yoo xamante ni ba jonne tey mu xëy benn bis dikk daan na day def amnistie waaw lii lépp da koy fàtte ndax moom doomam deewu ci jarbaatam deewu ci rakkam deewu ci sëram deewu ci kenn deewu ci yi daal da koy bàyyi rek mu doxe rek daal di tàbbi ci géej gi moom mu dem li ko fi des bëri ñu dem ba jamono yoo xam ne dañ koy wax ne ko organiser élection yi mu ne leen man Sénégal doyal naa fi sëkk sëkk sëkk awma sax lu ma élection yi duma ko fekkee dem ba àgg ci ne élection yi bu fekkee am na deuxième tour man deuxième tour bi duma fekk le deux fu mu jotee ma dagg sama kii te na ko waxee benn maslaa wala benn àq moo fi def amul dafa jaar këram takk bagaasam lu mu fi mën a jël ci wàllu loo xamante ni jël na ko yóbbu ku ne xam na ne du demee loxoy neen jël daal di dem ñu mel ni ndax jar na noo fal fal nit mu jóge fi amul fenn fu muy dem lu du tëbër bërki dem Macky Sall dane du ma dem fenn damay toog fii man affaire sociale lay ah, dem ak nàngam nga xëy xëy na jël daa kilifa diine yi dem ba manqué nit ñi manqué leen respect mu jël nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ci àll ba di saaga kilifa diine di wax ay sil euh, Souleymane Diop mu dikk jox leen ay ministre ñoo xam ne dañ doon saaga képp ko taxaw ci wetam wax wax joo xamante ni danga ko wax lu ko tagg wala ak lu mbir ma garaaw garaaw ñaata lan de Cour de comptes génne ak ay OFNAC génne ci ay raport yépp loo wax mu ne yoonam nekku ci nga gis ay nitam ñi mu te jege ci moom di saaga di tooñ loo mën a def def ak loo ko mën a mën a def yow daal jàppale ko boo ko jàppalee loo mën a def jig na la tey ana ñi ko doon def ana moom mi ko doon def ana ñi bañoon nañu wuutu ko ñoom usmaan Sonko ñoom ñii ñàkk pexe dong dong dong dong tax ak dogalab yàlla waaye Macky Sall mësul bëgg Ousmane Sonko ak ñooñu wuutu ko fi lu mu mën def na ko tas seen parti jàpp ay junni nit ci ñoom ñenn ñi faatu kenn xamul lu mu def loo xamante ni kenn xamul lu mu def ah. ñii ñëpp nga def ko lii tey xëy benn bis génn ñuy wax ne da ngay def nàngam alal jii fi nekkoon li ñuy reproché ñii fi nekk muy usmaan Ousmane ba Bassirou jomaay Faye nanu fexe ba alal ji génn ñii ëpp nañ sax ñoom sëñ bi yellootum sax di dugg di nekk ci biti ci biti li nit ñi daj nan ko daj ndax ma sàll dafa xamut woon kaso mësul dugg kaso ngir ak ragalam ak ñàkk ñàkk ñàkk kii loola nag moo taxoon képp ku war moom jàpp na ko mu gis ci biti nga jàpp nga nekk ci sa affaire mu jàpp ne yow kaso bi ci nga war a dugg amul ku mu dugalut kaso bi mag ndaw gone ku lim fu dugalut fi ñu toll boo demoon kaso yi ni meloon xam nga ne lu mat naa la ay nangami nit tijji nañ leen ci benn jamono te ñooñu ñëpp dañ leen a tëjoon ñii ñàkk seeni ndey bi ñu dikkee ñii ñàkk seeni jabar bi ñu dikkee fekk fas ñii seeni doom faatu ñii seeni nit meseer ba ba kii nga xëy xëy rek ne bonjour da ngay génn dem dëgg dëgg Macky Sall bu fekkee. jël alal li réew mi nu mu ci mën a paraas xool bi muy laata dem dajale presse bi télévision yi ne leen may leen quarante milliards quarante milliards mu jëkk-jëkk may leen ko alalu askan ne leen jëggal na leen loolu def nga ne sëñ bi baykat yi nekk ci àll bi sonn sàmmkat yi sonn nit ñi liggéey lu sonn ah tey lii lépp mu am fi ci la lépp doxe dem géej li daal li ci saafara ak liy delloo si xel yi ak xol yi mooy ñii ñii fi des a kës néew te bokkoon ci yëf yi te luubal ñaata nit lan lan wax ne ñi ngi doon fayeeku te liggéeyu ñaata procès ñaata lan jël ci suufu sénégalais suuf ku nekk xam na ne du yokk suuf yokkul suuf amul benn yokk bu muy am ñu jël ko séddoo ko ñaata junni nit ñoo nar a judduwaat ñaata million nit ñoo nar a juddu ngir nar a am ay problème ay dëkk ay benn nit am ay fanweeri kër ay ñeent fukki nangam am ay compte banque am ñaata voiture ñoom ñii ñëpp waaw ñoom ñëpp ñi demoon ci élection yi ñoom euh, nu mu tuddati Aliou Nguy Ndiaye ñoom ak ñun ñëpp Aliou Nguy ku nekk xam ne moo yore woon jiwu weeg yooyu te loolu ku nekk xam na ne ni mu doon doxe dara dara baaxu ci engrais week gerte geeg yooyu ku nekk xam na ne loolu audit bu yaatu la laaj Mame Boye Diao mi ku nekk xam na ne yooyu la laaj ak yeneen ak yeneen Macky Sall ñu ci bari ñu ko contre boo yëngutu woon Amadou Ba ñoom ak ñii ñëpp bu ñu yëngutu woon avant muy dem dina leen tëj ndax mi ngi yegg seen i yu leer nañ dafa xam ne rek kenn yëngutu wu ci waaye ku ci yëngutu woon ne ko hi lii ba ba yow képp waaye ku ronu ci sa suuf daal ak lu mu def ci luubal ak njubali ak nangam yow moom jig na la waaye yow daal ku la noonu lu mu jub-jub lu mu sell sell lu mu yiw yiw ab noon la danga ko toroxal moo moo jekk ci moom euh, boddi moo jekk ci moom gàcceel béccingal moo jekk ci moom noonu la fi defe ba ni mu fi jógee ba àgg ci dernier moment yoo xam ay ñaari fan ñetti fan ngay signé ay contrant di defal ay nit ay kii ak lu ne nga def ko sëñ bi mel ni réew mi dañ la ko joxoon ci joxin woo xamante ni dangaa dangaa xeexoon ba jël ko wala dangaa not nit ñi amul benn lu mu sedd nit ñi ci wàllu loo xamante ni xanaa ko dem ba ñaari fan dese la ngay signé ay décret di signé ay nangam di def loo man ci def ngir réew mi nekk ci ndóol ngir réew mi nekk ci ak tumuraank ngir réew mi ñi fi dund ñiy dund dund ci dund bu bon ku karit yoo amoo ci dara loo ci seexlu wala loo ci bañ kuy def nag loo for seex nag dangaa war a di am looy seexlu waaye dara mag sal moom dara lu mu seexlu woon amul waaw lu ko neexul kay ak lu mu bëggut def lu aw nitam def ci ñaawteef rafet na di dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nguur nag bala noo xam yor gi nga ko yoroon am na solo ci yow wala yàlla fay na la nga dem ba ca kanam sëg mujj yooyu ñàkk du mën a ñàkk faaw mu fee li tàng ci xol ak li li tuuru ci rangoñ ci dënn ak li tuuru ci suuf ci deret ak li tuuru ci ci ay xol yu naqari yooyu yaakaar naa yàlla faaw mu am lu ci intervenir te intervenir yàlla sax am na ndax nguur gi ku ne ko woon ñoom Ousmane Sonko ñoom ñi ñoo lee xoole bi mu taxawee France naa leen bu leen fexe réew mu ngeen jox ko ñuy saaga du ngeen ko ko jox woo ay nit ñoo xam naa leen da ngeen dem protéger seen koñ da ngeen protéger seen koñ ku fa ñëw nar a yàq na ngeen dal ci kawam en tant que ab chef de l'État nga naa ku fi ñëw na ngeen dal ci kawam yow ñu téye loolu sécurité bi téye loolu santé bi téye loolu nanga université baa nga àgg mu lànk ne du ko ubbi